الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم سير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولاه ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولاه ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولاه ونعم النصير سير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير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 Euh, moi qui vous parle, je m'appelle euh, Amidou Badji, le président du comité qui pilote le Gamou chez Haj Malik Thiam euh, depuis 2016, euh, donc depuis 5 ans. Je m'en vais faire une déclaration par rapport à ce Gamou. Au nom du calife euh, Imam Malik Thiam, au nom de, son maître ici à, la, à Madina Soane, la maison Khalifa Almer, euh, au nom des populations de Djouloulou, au nom de tous les imams ratib de la commune de Diouloulou, au nom des imams ratib de l'arrondissement de Kataba, au nom euh, de imam euh, Moujib Rahman Sissé, imam ratib de euh, la commune de Diouloulou par ailleurs, euh, président de l'association des oulémas de l'arrondissement de Kataba, au nom du cheikh euh, Cheikhna Cheikh Mahfouz Aïdara, euh, je veux nommer au nom de Cheikh Atab Aïdara, qui est le calife de la famille chérifienne 6A Darou Khairi, au nom de toutes les femmes, au nom de toutes les daïras, au nom de toute la jeunesse, au nom de tous les talibés où qu'ils se trouvent, la parole pour vous du Gamou Cheikh El Hadj Imam Malick Thiam. Euh, en ce jour 18 décembre 2019, euh, la famille Khalifa Al 6 à Santossou, chez le Khalif euh, Imam Nous vous parlons de, du GAMU, la cinquième édition du genre, qui est prévue cette année pour le, euh, le 15 février 2020. Donc, en fait, le GAMU euh, que nous allons célébrer cette année, qui est année à sa cinquième édition, est un événement transfrontalier, un événement à la limite même sous-régional, parce que réunissant tous les, les, les fils et filles de Djulum d'abord, mais aussi tous les filles et fils talibés de tous les bords. Donc euh, euh, cette année, comme je l'ai déjà dit, nous en sommes à la cinquième édition. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel pour que toutes les forces vivent d'abord de Djouloulou, tous les talibés de Djouloulou, mais aussi tous les talibés et fils de la diaspora, du Pakao, d'abord d'où est originaire le Cheikh, mais aussi de la Guinée-Bissau, de la Gambie voisine, mais surtout de tous les euh, oulémas de l'arrondissement de Kataba, de, Kataba, de Kataba 1. Mais sans oublier également Imam Ratib du département qui est euh, Imam Fansou Bodian, parce qu'effectivement aujourd'hui c'est le département, dès qu'on parle de Djouloum, c'est le département. Donc cette année, euh, l'édition est déjà datée et toutes les dispositions sont en train d'être prises. Et nous lançons un appel encore une fois de plus euh, très les gens puissent faire l'unanimité, les gens puissent euh, dans la main, parce que ce Gamou, effectivement, fait la fierté de Djouloulou, parce qu'aujourd'hui, Djouloulou est aujourd'hui lancé à l'international grâce à ce Gamou. Donc voilà à peu près la première déclaration que nous faisons. bismillahi irrahmani irrahim allahumma salli ala sayidina muhammad fatihi aqfalil qulub bi mafatihi anwarul ghuyub wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu si tuuru suñu kilifa di suñu xalifa di suñu baay di suñu sëriñ képp koo xamante ne bokk nga ci famille bi wala takk nga ci ñoom donte sax sant wuloo caam ñu ngi leen di soññu di leen invité maa ngi wax ci tuuru famille bi waaye maa ngi wax ci tuuru xalifa bi ak rakkam mi nga xamante ni mooy Cheikh Baké moo Caam mu ngi dakaar waaye xelam bi yëpp mu ngi fii ci xalifa bi ak comité bi ñu ngi nuyu aussi le président le président Amidou Badji ñu ngi koy siyaara bu baax a baax di ko ndokkel ak ñi mu àndal ak ko wér ak taalibe yi taalibe yi nekk ci biir dëkk bi ak taalibe yoo xamante ne ñu ngi Gàmbi ak taalibe yi nekk Guinée Bissau ak suñu mbokk yi nekk Badunga dëkk bi nga xamante ne foofu la cosaanoo mooy Badunga mu ngi leen di invité ci bés bi kon ñëpp la ñu woote ndax sëriñ bi li mu soxla ci bés bi mooy jullit yi fu ñu nekk ci àdduna muy nekk ci ak diaspora ñu nekk France nekk Amérique samay rakk yi nekk foofu Cheikh Abdallah Thiam ak rakkam Aboubacar cam ak ñoom Pabi Thiam bu nekk Allemagne ak ñeneen ak ñeneen ak ñoom Abdou Badio ak yeneen ak yeneen ñoo xamante ni mënu ma leen tudd waaye seen kuréel bu mag bu nekk itali te sumu taalibe bi jiite ko mooy Umar Bisidi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo di wax bi wax ne bés bi seen bés la waaye nag fàttewuñu suñu daayira yi daayira soppi bi daairatu fillahi ak yeneen daaira yi nekk ci biir commune bi jululung neuf quartier la quartier yooyu yëpp ñoom ñooy njaati gan yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu suñu kilifa bi suñu baay du imam ratib mujib rahman Cissé mi nga xamante ni moom mooy imam ratib de la com euh, de département de de de l'avancement de Kataba 1 aussi ñu ngi lancé appel bi imam ratib de la commune euh, de du département de Bignona muy El Mfassou Bodian bi nga xamante ni ñëpp xam nañ taxawaayam ci biir gox bi ak ci wàllu lislaam waaye fàttewuñu suñu sérif yi sérif Cheikh Atab Aydara bi nga xamante ne moom mooy xalif général de tout les sérifiennes bu nekk fii ci Daara Salaam Daara Xayru ñu ngi invité sérif bi yëpp yu nekk Daara Xayru Daara Salaam Mahmouda ba fii ba xawdu ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di invité ci bés bi ndax bés bésu rasulullahi la sallallahu alayhi wa sallam kon du képp koy woote pour rasulullahi da nga war a fàttale ko chérif ni ñu ngi nuyu aussi ki nga xamante ni mooy suma baay di sama xarit di sama turandoo monsieur le maire de Diouloulou bi nga xamante ni taxawaayam dëgër na ci gox bi taxawaayam dëgër na ci lislaam taxawaayam dëgër na ci dëkk bi waaye nag yàlla suñu borom moo ko tànn ren mu nekk parrain de ce gamo ah ñu ngi nuyu tam suñu yaay suñu sœur ki nga xamante ne mooy Seexa Astu Njaay bi nga xamante ne moom moo nekk marraine de cet événement kon nag ñu ngi koy nuyu parce que ñu tax ñu ngi koy nuyu Adja moom mi ci boppam bi sëriñ bi sàncee gamo bi mu commencé ko ndigal bi baye ko Madina Souane ci xalifu général bi foo nekkoon mooy Cheikh Ibrahima Souane rahimahullahu taala yal na ko yàlla yërëm waaye nag a ah, ki ko wuutu fii mooy Cheikh Alhaji Karamba Souane mi nga xamante ne mooy xaritu waa jululu waa julul dañ fay jóge chaque année di dem gàmmoo ci Madina Souané keroog la toog sëriñ bi kontaan mu jël kaddu bi di ko yëkkati di ko jox ci sëriñ bi Cheikh ma Alhaaj Malick Thiam di ko ne ah yow de ak sa rakk maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm ak waa jululum ngeen bàyyi gàmmoo jululum tey ñuy gàmmoo ngeen ñëw fii ma ziyaare di ñëw di wone ne jululum ak Madina Souané ñoo bokk baay ñoo bokk ndey kon nag dinaa leen jox seen bés man tam ma ànd ak sama njaboot ànd ak samay samay samay rak ñu ñëw di ñëw jululum ñu delloo leen jukkal loolu moo juddu gamo bi sëriñ bi ne ko kon dinaa nangu gamo bi ndax gamo bi xam naa ne jululu ñoo ko moom kon nag gamo bi cër bi dinaa ko yóbbu ma yóbbu ma yóbbu ko jululu moo tax bi affaire bi ñëwee sëriñ bi jox ko jox ko imaamu ratib rakam mu jox ko ñu eh, eh, yeneen imaam yi nekk ci gox bi jox ko population de jululu sëriñ bi nee ne amu ci benn dispersion ndax suma yaay yi ak samay samay sœurs yi ak samay bajan taxaw nañ ci gàmmu bi surtout la jeunesse de Diouloulou la jeunesse de Diouloulou taxaw nañ taxaw bu rafet te def ci liggéey liggéey bu xarañ loo xamante ne sëriñ bi kontaan nañ ci waaye boo demee ci cuisine bi da ngay xam ne waa Diouloulou ay jàmbaar lañu waaye nag ay gor lañu waaye nag ñu ngi sant imaam yi yëpp ñi nga xamante ni moom la imaam ratibu eh, eh, yëlif kon nag maa appel yónnil appel bi ci si daayira bu mag bi nga xamante ne waa Jullum kontaan nañ ci ñoom faaw ñu tudd leen mooy alhaaj Lamine Suwaane bursu bi ak waa Gambi ñu fay jóge ci daayira ëpp na juróom ñaari daayira juróom fukki daayira yoo xamante ne dañ fay jóge kon nag ñoom itam fàttewuñu leen ñu ngi koy sant di ko gërëm mbemba mañol kontonna kabonda alansola kana addokol kan mbe baba min kera cheikh alhaj imam malik camti miyalon ko ay daralo ñin sate to jang a fama ay daralo jang sanji tallulu komanto ay molu karandi jang wo molu be beŋoto jang mimbe ko imam idrissa ñolu mimbe ko buba saña ñolu mimbe ko dolu nin dolu nin dolu mi yalon min dandula lon nola wo molu bi mbari musol min felasirin koma jang alhamdulillahi rabbil alamin ilo ñañi ñata moro se min fono wala mo kontanoti ako aɓe ñin kiɓari ñimma futandila a khalifa bama min ɓe madina suwane mi yalon ko atelemo cheikh alhaj ba karamba suwane mi yalon ko jululunteɗolo mati mi yalon ko sanjinani komanto atele le khalifa bala kuma kan ta ka futandi jullunkolu ma jullunkol ye dayira ba bondi jang kata kata maɓe ele gamoto wayatara jullungolum haɗamaya baɓe satede jan dinola karola moro contanta e ko jullun na foraya foye samburindi jullun kan o tembole e natana ndigalodi morola ana do a keɗa bakemode kayitandila ko lafta mam ousmane miyalan ko jullunkol ya jiya imam malaye ya muta ya tembu tembu fo ala ya tebulu imam fasi e adimu min a kulo kam min keɗa babati aɗa yo fanan topoto fo on um fotata en temboto fo alkalla di ɓeŋotuji alkanama ɓen na ɓeŋoto woto on fanan mba allah ɓeŋodilala on fana enen um dankun jululon alhamdulillah rabbil alamina ɓeŋo nate ola ñama baba e ɓeŋoji kawla ayadiya doko mala min kede imamu ratibde mujib rahman sise ka yitande sate molla ka yitande banko molla alhamdulillahi rabbil alamina man fasi imam fasi ilo ñañi ñaata banko fonninkelu banko talibolu banko siñolu banko kanuntelu ibe lota yimɓe gota yake tati barin ɓe jululun tv kontonna jululun tv mi yalon ko bi alay wala kere kere kaadin tolla bare jullum tv janniɓe commencé la en commencé ɗo folon na radio bumuna mi yalon ko wola mu kayraba fm ti mi lonko ko aɓe jullum sate kono jang alo ñañi ñaata ilota bankoye ilota moroye ilota dinoye ilota aɗoye bare moro nata sewo wala bake moro kon si kontondiri ñim ma samba jaati mañol kan mi ya lon ko bi wala mo batanosti mi ya lon ko atel be siri mama sunkare la dimbal bi jang a siñol bi jang a kanuntel bi jang ka bilol min ya lon bebe denni moro la wo ka bilol le be siri jang bilen nan jaasi kunda tiana kunda kata fo e eh, kata fo eh, sañan kunda kata konte kunda kata kabila tomal ɓe sise kunda wollel muy kabilol tumi yalan ko mote ɓe dantenono anin kabila tomal min ɓe denni ñonna mbo kabilol wollel yimɓe gota yake ñama mi yalan ko mawro fon may yilla damin ma woto e hadamaya min mbijan o hadamaya wala mo foñin kolti foñin kolu ani kata naran wol be mo satelleti min yalan ko ini moro e dow koke dino kono bari bi ñin beŋo illo ñañiñata je woto foñi jaban kunna moro be be kontonna birin nan kabo kataba on kata oh, kataba de fo kata ke biñona la o kabo ñin na kata senke bala woyta ko kubana ke pa moro jatiolu amma ñine la ila imam ratibo min keta imam kambakari boo bojan alhamdulillahi rabbil alamina morola mo kende ani almaɓe tomal mi banko kam bare fo ñi jaɓankunda a ñañi ñata naran lo ñañi ñata moroɓe contanidira kuwola bake aba yitandile ko le 15 février ni ala kiititala 2020 wala ñante kala gamoti ntemin ka diyamo ten aldiŋolon allah kuwol beelom e porte parole o mi yalon ko ala ya tombon bare ka ɓiɗo ya tombon ka bonan bake mo ɓulu ka futande kalifa bama ka yitandala ko dimbayal kono ga mojiɓe min sen wasa o tembole natande tombon pour ngalo cheikh abdallah aninde ko tomal beela place oto pour in ka manki e wasa jang gake karala newti pour in gamoñen ka yitande ko banko ñinna tamu ntolu tante ntol muyla dow kulal dammalati ntol muyla mbaye falolati ñin kammala ko pour in kamma ko ala mbem mbamañol kontonna kaɓonna alansola i kontawni kan mbe baba min keta cheikh alhaj malik camti mi yalon ko aye daraloñin sate to jang a fama aye daralo jang sañi tallulu komanto aye molu karandi jang wo molu ɓe beŋo to jang minɓe ko imam idrissa ñolu minɓe ko bouba sagna ñolu minɓe ko dolu nin dolu nin dolu mi yalon ko mote min dandulalonnola wo moolu bi mbaari musol min felasirin koma jang e alhamdulillahi rabbil alamin ilo ñañi ñaata morose min fono wala mo kontanoti ako aɓe ñin kiɓari ñimma futandila a khalifa bama min ɓe madina suwane mi yalon ko atelemo cheikh alhaj ba karam ba suwane mi yalon ko jululun terelo mati mi yalon ko sanjinani komanto atele le khalifa bala kuma kanota ka futandi jullunkoluma jullunkol ye dayra ba bondi jang kata kada maɓe ɗa gamoto wayatara jullugol ngol haɗamaya baɓe satede jan dinola karola moro contanta e ko jullun na foraya foye samurundi jullun kan o tembole e natana ndigalodi morola ana do a keɗa bakemode e kayitandila ko lafta mam ousmane miyalan ko jullunkol ya jiya imam malaye ya muta ya temmu temmu fo ala ya tebule imam fasi e adi min a kulo kam min keɗa babati aɗa yo fanan topoto a on um fotata in temboto fo alkalla di ɓeŋotuji alkanama ɓenna ɓeŋoto woto on um fanan mba allah ɓeŋodilala on fana inen dankun jululon alhamdulillah rabbil alamina ɓeŋo nate ola ñama baba e ɓeŋoji kawla ñama ma ayadiya doko mala min kede imam ratib de mujib rahman sise kayitande sate molla kayitande banko molla alhamdulillahi rabbil alamin man fasi imam fasi ilo nyaani nyaata banko fonnin kelu banko talibolu banko siñolu banko kanuntelu ibelo ta yimbe ngota yake tati bari mbe jululun tv kontonna jululun tv mi yalon ko bi alay wala kere kere kadin tolla bare jullum i janniɓe commencé la en commencé ɗo folon na radio bumuna mi yalon ko wala mo kayra ba fm ti mi yalon ko aɓe jullum sate kono jang allo ñañi ñaata ilota bankoye ilota moroye ilota dinoye ilota aɗoye bare moro nata sewo wala bake moro kon sikkondondiri ñemma samba jaati mañol kan mi yalon ko wala mo batanosti mi yalon ko atele ɓe siring a <clears throat> injila kom uh, arungati fujoja fandika gororak ɓe kane mo kanameti gam way yeti uh, kalifa o ala komi malik thiam dere jululum tati santusu uh, gam het finkin yo ala e gam way kammi waya sowoni tok

Euh, Cheikh Atabu Aydara ala kom jarde tugonno sankanabaɓe wafdi arrondissement ti katabaɓe sankante kusirfek bara foof di euh, karesa kati euh, imam fan subojani man joni jaat ona jaat jululum oto yoydi département ji donc bara foof di karesa kati bukana kati baɗɗuga walla kati pakaw bana amore pulomi jomɗe gaforima fo ɓe ka sank e safi bukanak ndi kano jumañ mete événement et finki yala gam wey pene ƴa rewde fulega fati baje kona diyemite yunkule yankone mi 2020 pan ukana yo baɓe numi piyami kanam moka nimammam bukanak monkule kom mo événement gamo wiye kantu gam yeti malik gam kantu gam yeti tu oto anosan tanami won wole mu kan be oje be kan ma mu kan facul parce que islam anosan goron be islam an goro goron be fuke oto ni mam man ku kamna si dairas ku talibak anosan banami mam bulle ko meti beti evenement la ko mi gam yelo la ulla tu ci lami yo jolelo jolen yolam jonkoranya finci en ansanam di buro ko ba ƴake bukan buro ko ɓe suume ɓe ola komi a, a mera o ololal ana ma jona foktulay on mbagorode wajeɓe kano jillume jo feculu ala komo euh, malan cam bara o keɓo let e euh, nugaraga an an ma jone borka boladi islam bururuk ola komo ayma ola komo ajaratu cheikha aissatou ndiaye no manjamañomete ajaratu cheikha aissatou ndiaye na kata kata fam fadi communauté jullulum oni jukumi depuis nan commune e kane commune ala depuis l' o angaro mbukan koni fu tokdi ku gaba ku sekak di ku nina eh, a jituma a jituma ja kali be maka ku ja ku kan hije oto tok jati kaban ket malik di ngara man ku ngolen ko kom kana islam pour man ajo ko gaba ku teb finkin gamoyati imam malik cham yo kami takun kan bukan jakali do tu kayisen met gamoye e ise ise ngiludum be pren pren eh, njemet ende bula eh, jululum fëccul e eh, yise sen jullum doniyayi oto takum bukana kula ko man kuceng wawma tu e kane waje be kane man islam e rong jululum mam kana ko sofor man jululum e fangmene je fecul mo kammi e eh, ul ko kere bukana ko alhamdulillah rabbil alamin taala jan be fuleng eh, gam fuleng di wikun gam we punoke nadio e eh, assalamu aleykum wa inje e nyaka sankana ko lo di karesa kati comité de pilotage an man jone injer ko palom ul yondum tu injeru ngebare comité de pilotage en ja comité de pilotage te tous les aleykum wa rahmatullah